مولانا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 mbokk yi maa leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di santaat yàlla bu baax ci bi nu mayee nu del siwaat ci jataay bii di ñaan yàlla mu defal na ci tawféex defal na ci mboolem liñ ciy wax muy lu mu gërëm te nangul na ko te boole na ci jariñ nun ñëpp ci daraje sëriñ bi ne ngeen ko xamee nag noo ngi dugg ci weeru gàmmo gàmmo weer wu màgg la weer wu rëy rëy la weer la woo xam ni sëriñ bi da ko fonkoon sëriñ Tuubaa da ko fonkoon lool wax nañ ne bu ma saa ñëw ku ko njëkk a wax ne weer wi feeñ na dana la neexal wax nañ wax nañ ne itam biir weer wi mbégte la ci daa àndal te aajo juñ ko gaaral rek dana ko faj lépp lu mbiri àdduna nag daw ci nangu àddu day wax ne nañ xaar ba sunu gan gi weesu muy weer woo xam ni ci mbindam it wax na ci ba tey ne moo gën ci weer yëpp weer yëpp weeru gàmm moo leen gën wax na ne faaqa rabiul awwali shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura maanaam weeru gàmm moo gën weer yëpp li tax mu gën leen mooy feeñ gi ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñ bi mawlidi alladi wax na sax na moom day weer woo xam ni weer yëpp buñ dajee mooy seenub taar maanaam moo leen di jox sa ab taar chahru rasulillahi bahjatu shuhur ak yeneen wax yu bëree bëri kon weeru gàmm day weeru màgg Sëñ Tuubaa moom ba fi Maamor Anta Sali jógee ca assassin mille trois cent un biiru Maamor Anta Sali di fa nekk moom mos sa yëngal dara moom waaye bi fi Maamor Anta Sali jógee ca déwén sa rek la tàmbalee gàmm dañuy wax ne ahyaytu mawlidan nabi min asasi asasi la ko tax Mamadou Ansali na sasin la sëñ maam la sëñ Mouhamed Deme Diop da nga wax waaye jiitu na ko tuuti ndax sëñ sëñ Basiir wax na ne mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf ci muharram wa ci la fi jóge moom Mamadou Ansali waaye lu mën a xaw ci déwén sa rek at at ma topp rek ci la tàmbali gàmmu at moom la tàmbali at mu ne day def ak xasida ci gàmm gi gën jaa genn xasida léeg-léeg xasida yu bari la ci def da ko daa gàttandu di ko teral di ko gunge itam niñ ko defee fii ci Darou moo Darou Mouhty xam nga ñoom bis bi ko jiitu dañ koy màggal bis bi ñu màggal ko moom gàmm gi buñ buñ gàmm suba gi itam bis boobu ñu ñu ko mooy gunge bi sëñ bi itam noonu la ko daa defee moom weer wépp mën na daa màggal sax moom wax na ne daani ila ihyaa ida shahri ihyaa ida shahri daani ilahiya ila shahri daani ila ihya ila shahri kawnuhu li xayrin wara darfan du noonu la daani ila ihya ila shahri kawnuhu daani ila ihya ila shahri kawnuhu li xayrin wara darfan xawa kulla shu'dadi maanaam weer wépp la daa la daa dundal moom la daa màggal doo ko daa gàttandoo ay xasida di ko gunge itam buy dem it mu di ko gunge ay xasida loolu lépp kon weer wu màgg la woo xam ni siriñ bi daw ci daray wéradi fi ne danaa wax weer wi bu ñëwee mboolem wéradi yi ak tàyyeer gi day dañ ci moom yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali adhabta qataan maradi wa kasali maanaam mbégte mu rëy danaa def ci xolam moom weer wi loolu bari na lool ci waxam fi wax ne saadati adharaha rabiu al awalu alladi huwa rabiu maanaam sam nee na mbégtem xolam weer wi rek moo ko mën a moo ko mën a feeñal adharaha rabiu te weer bi mooy rabiul umri rabiu mooy li ñuy wax jamono yi naataange yi nga xam ne ci lépp di dox loolu lañ tudde rabiu bu dee fii ci Sénégal xam nga bu dee ba nawet bi wàcc baykat yi yaay seen mbay xéewal am loolu la ñu tudde ragal loolu nag réew mu ne xëy na mën nañ ko wute saison saison yi day wute waaye suñu tubaab daa ne rabi wala umri moom benn la mooy mooy gàmm gi weeru gàmm <laughs> kon jëmmi gàmm lu rëy la lu am solo la loo xam ne itam eh, lu mot a fonk la itam sëriñ bu mag bi radiyallahu ardaahu moom da ko daa dundal li ma ko waxee daa ko fonk lu itam daa ci def ay bernde ak i xéewal waaye am na nu mu ko daa màggale itam nu mu ko daa màggale nag mooy jàng alquranul karim ak julli ci yonante bi ak def xeeti azkar yi bu ko defee nag ci mbooloo mi nag dañ daa jàng mawaahibu ak jësbu ak muqaddamat ak barsan ji yooyu lañ jàng mooy niñ ko defee fii ci gàmmu gi rek nga xam ne buñ jàngee bunt ci muqaddamat jàng fukki fukki way ak ñaar ci mawaahibu def ko ci jisbu jàng nag ab bunt ci ci ci Barzanji bi bi nga xam ne moom la ñuy Jaafar ak Barzanji bars bars maanaam mawlid bi mu def mawlidul Barzanji moom sax wax na ne sëñ bi moom saraa ko sarxu na ko man gisuma sarx bi waaye waaye am na wax nañ ko mi ngoog loolu nag noonu lañ ko daa defee guddi gi yëpp bu ko defee kenn ku ne nekk ci dara dawul ndongo nag kenn ku toog rek defoo dara kenn ku nekk ci salaatu al nabi walla loo man rek ci ci ci dundal guddi gi kon weer a ngi woo xam ni la yonente bi waxoon ne inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafaxaatin fa taharradu laha dafa am jamono yoo xam ne suñu boroom da ci gën a nongu gën cee def barke ci barke boo xam ne loo ci def rek yàlla da day gaaw a nongu li ngay def jamono yooyu nag lu mat a xàmmee la ñoom bis yi wuute nañ lépp wuute lépp lu toll lenn lu tolloo amul maanaam bis yi daa wuute gis nga ayu bis gi ajjuma bokk ci gan yonente bi nee na mooy gën ci moo gën ci bis yëpp waaw waaye ku ne xam na ne fukki fan maanaam koo weeru koor gis nga bokkut weer yi dara noon da wuute weer yi bërëb yi tam gis nga noonu lañu wuute Makka ak Madina ak Touba masalan yooyu ni ñu wuuteeg yeneen bërëb yi nga xam ne loo ko def ci ci lu baax na ko yàlla nangoo ak nam koy fule day wuuteeg nga defoon ko ci beneen bërëb mi nga jëmm yi itam noonu la wute maanaam lépp daa wute wute yooyu nag loolu day am ci jamono yi de am jamono yoo xam ne suñu borom day day day gis nga njël maanaam bu dee bis bi njël wax na yonente bi nee na suñu borom day jege nit ñi yan si lu rabbi rabbikum rabbukum suñu borom day wàcc ci li muy tudde nusul rek lay def ba jege nit ñi di wax naan ala min mustaghfirin fa aghfira lahu ala mustarziqun fa arzuqahu ala kaza ala kaza di wax ku bëgg a jéggal jéggalu kuy jéggalu ma jéggal ko ku ami bàkkaar te bàkkaar yi ko ma jéggal ko ku bëgg wërsëg ma jox ko ko ku ku ku am ala mubtalan fa uafiyahu ku am jàngoro te bëgg eh, tàggoog moom nama ñaan léegi ma daal di ko tàggaleeg moom maanaam nga xam ne waxtu kon wuute naa yeneen waxtu yi kon mbir mu ne dafa am ay nafaxaat ala inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafaxaatin fa taarradu laha loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax laalla ahadakum an yusibahu minha nafhatun la yashqa baadaha abadan ndax nafxaati suñu boroom yooyu boo ci dajeeg benn benn rek dootoo texee di mukk leer yooyu suñu borom yi sànni ci jamono yi nga xam ne jamono yi ñu barkeel la su la ci yàlla dajee rek genn leer rek fi ne sa affaire sa lépp baax sa xol jag te doo amati jafe jafe-jafe te itam doo doo maanaam da nga daal di texee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nag léppam xewal la lam doon wax ne sama dund xewal la ci yéen waaye sama génn adduna itam xewal la ci yéen xayaati xayrun lakum wa mamaati xayrun lakum xayaati xayrun lakum mooy tuxdisuuna wa yuxdasu lakum wa wafaati xayrun lakum tu'radu alayya amalukum fa ma raaytu min xayrin xamadtullaha alayhi wa ma raaytu min charrin istahfirtullaha lakum moom yonente bi léppam xewal la xadis bi borom majmau zawaid eh, wax na ne muy eh, alhaytami wax na ne ba imaamul bazar moo ko nettali te xadis bi wér la rijaaluhu rijaalu saxiix yonente bi wax ne sama nekk ci kaw suuf xéewal la ci yéen ndax dama fi ne di jëflanteeg yéen waaye suma sama ñàkk nekk ci kaw suuf nag mooy sama génn àdduna loolu xéewal la ci yéen ndax li ngeen di jëf lépp dañ ma koy wan tu'radu alayya a'malukum xam nga jëmm jooju moo lay xamal ne kon wut wut wut naag ñëpp maanaam ginnaaw lu waay jëf rek des na ko ko wan na jullit ñi sax loolu waxal ci xadis bi moom li ngeen di jëf yàlla da koy wan nee lu ma ci gis lu baax ma sant yàlla bu ma gisee safaan nit ma jéggalul leen suñu bon tabaraka kon yonente bi sallallahu alayhi ak dundam lépp xewal la waaye génn àdduna bi itam xewal la bis bi mu feeñ nag ci la xewal yëpp tàmbale muy bisu mawlidu nabi di fukki fan ñaar ci weeru gàmmu donte am na wuute ci borom xam-xam waaye fukki fan ak ñaar yi moom am na ijmaa daanaka ndax borom xam yëpp daan nañ tab tabandi nañ ko mi ngoog sëriñ bu mag bi nag moom kon ne xam na ne yonente bi moo doon léppam yonente bi moo doon léppam maanaam mooy mooy yëngoom ak léppam da ko àndoon ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolee mu wax ci njëlbéenu muqaddamatul xidma asura wax ne billahi alladi la ilaha illa xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man léppam da ko àndoon ba tax na gàmm moom kenn waru ci jiitu am murit kenn ci jiitu am gàmm nag du dara lu may daje fàttaliku rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak ak ak ak sant yàlla ci xéewalug yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak bég ci feeñ gi mu feeñ loolu rek mooy gàmm te loolu maanaam sunna xasana la sunna xasana la sunna su su rafet la ndax rasulullah ci boobu moo njëkk a tàmbalee màggal bisu bisu feeñam gi kon xam na ne imaamu muslim nettali na ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam sayidna omar xadis sayidna omar bi wax ne yonente bi dañ koo laaj bisu altine bi mu daa woor mu ne leen zaaka yawmun wulidtu fii bis boobu ci laa feeñ maanaam lu tax ngay woor bisu altine bu ne nga woor ko mu ne zaaka yawmun wulidtu fiihi loolu la njëkk a wax teg na ca yawmun unzila alayya fiihi aw aw kama qaal waaye bis boobu da wax ne ci laa feeñ loolu rek mooy mooy gàmm maanaam loolu cëslaay lu loolu boo dee wax wut cëslaay loolu rek mooy cëslaayu gàmm bi ne yonente bi daana woor bis bi ñu ne ko tax nga koy war mu ne ci laa feeñ loolu moom mooy doon gàmm kon waaye xëy na ak mbaaxam ak woyofam ak lewetam ak maanaam tawaadu xam mayu ko mu ne kaay leen di gàmm waaye ginnaaw mi ngi koy def rek loolu fi ne xujja la yonent maanaam bépp jullit boo xam ni maanaam bëgg nga lu baax te yonent bi itam bëgg rasul la itam sax na ci sa xol dina da ko roy ci jëf jooju ndax ginnaaw daana ko màggal ci di ko woor liñ ko laajee mu ne moom moo tax boo gisee borom xam-xam yépp yépp solo ci borom xam yi bi yaakaar naa def na daaw waxtaan nañ ci ak at yi yépp du jar ñu ci guddal waaye junni at yi yu weesu yonente bi maanaam ca jamono yonente bi ginnaaw yonente bi boobu ba ni ñu amee junni at amul borom xam-xam bu mag bu ko fi weddi lu may ñaari nit ñaari nit ñooñu kenn xamul leen dara <laughs> duñ duñu am solo waaye gis ay junni junni ni junni borom xam-xam jaar nañ fi ñëpp saxal ko xuffaas yeeg muhaddisuun yeeg fuqahaa yeeg yëpp def naa ci gëstu boo xam ne yaakaar naa am na fu ma ko dajale wax nañ ko ba tàyyi fii ah loolu moom moom moom moom moom eh, ah, ba ci borom xam-xam yi daanaka ma ne ne ci bari bind nañ ay ay téere ci mawlid maanaam téere ñu bind ci mawlid rek kenn xam nañu toll comme bari barisan jii boobu ni mu ko defee noonu la ko ñeneen yu bare bari defee waaw ah, Ibnul gis nañ li mu ci wax ak ibnu kasir ak ibnu dahiyata al andalusi ak ibnu hajar al asqalaani nga xam ne moom amirul muminina fi ak jalaluddin siyuti moom ci am na cëslaay leneen loo xam ne ca la ko ca génnee ca la wax ne moom moom ci fa la koy teg maanaam xam nga diine du lépp loo xam ne yonente bi defu ko woon rek loolu bokkul ci diine wala wala bidan la dé loolu moom ko koy wax mooy ki xamul dara ci diine moom maanaam yonente bi ay cosaan lañu la ñu indil yoo xam ni lenn bi mu ngi ci alxuraan lenn ci mu ngi ci sunna ginnaaw bi nag lépp lu ñu sos bu mënee dellu ci cosaan yooyu rek ci diine la bokk yàlla li muy bañ mooy maa laysa minhu la yonent bi wax man ahdasa fi amrina hada maa laysa minhu waaye maa huwa minhu ko kenn bokk te wax na ne man sanna fil islami sunnatan xasana xam nga sunna xasana am na mi ngoog moo tax eh, jalaaluddin eh, ibnu hajar asqalaani moom dafa wax ne moom fi mu cislaay li koy teg mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu ñëwee madinal munawara yoo fekk yahud yi di wor bisub asura mu laaj leen lu tax ngeen koy woor ñu ne ko hada yawmun aghraqa allahu fihi firawna wa najja muusa fa nahnu nasuumuhu shukran lillahi taala ne mu maanaam ñu ne ko bis bi ci la yàlla labale woon Firawna xettali woon Moussa musal ko ca noonam boobee moo tax nag ñu ngi koy woor di sant yàlla ci loolu yonente bi ne leen nahnu ahaqu bi Moussa minhum fa saamahu wa amara naasa bi siyaamihi aw kama qaal boobu xadis bu wér la boo xam ne amul benn benn sikk mi ngoog ngi ci sixaa yi léegi nag Ibnu Hajar al Asqalaani wax ne loolu cosaan la ginnaaw lii ak xiiwal daa amoon ci bis bi gaañee di ci sant yàlla ñu yonent bi sax ñoo fekk si leen ba digle ko nag ne nañ nañ ciy sant yàlla ci xéewal googu ndax ñoo leen gën a yey ci Moussa kon xéewal bu amee ci bis sa sa sañ sañees na di ci sant yàlla maanaam saa yu dikkee bis boobee loolu itam ab maanaam istimbaat la bu am solo boo xam ne Ibnu Hajar ni moo ko def wax ne ci la ci ci lay delloo maanaam maanaam jëfi jëfi mawlidi mawlidu bi waaw loolu nag buntu boobu fi ne ci la ñuy delloo mboolem màggal Tuubaa yëpp ci lay ci lay duggee nekk nekk loo xam ni lu lu dugg ci lislaam lay doon lu sariya nangu lay doon lu bokk sunna xasana lay doon ndax xéewal daa amoon ñu ciy sant yàlla fi ne tey niti muusa yooyee muy yahudi bis bi yàlla labale woon euh, Firawna musale woon ci Seydina Moussa alayhi salaam bis ba mën naa bañ a tombeek bu delsiwaatee ci at mi te ay saa yu ñëwee rek ansora fukki fan ci weeru muharram rek faaw ñu faaw ñu faaw ñu sant ci yàlla ñoom waaw mi ngoog moo tax bisu mawlid bi itam fi ne même bu tumbi watul altine ba nga xam ne moom la yonent bi feeñoon itam lu tee noonu bis bi la ñuy jàpp a lii daal tegtal la boo xam ne yu bari bari mën na ci mën na ci génn teewul nag jalaal din siyuuti yi masalan bi nga xamee ne indi na wax yi eh, ibnu xajar jooji ak lam ci wax lépp muy lu gudd loo xam ne xëy na du jar ñu indi lépp dafa wax ne moom am na feneen fu mu koy teg moom mooy yonente bi bi mu demee ba yàlla yónni ko dafa dafa ngéntewaat boppam rey am xar dafa ngéntewaat boppam rey am xar loolu maanaam dundal bisub ganeem la xam nga loolu dara gënu ko gënu ko gënu ko gënu koo nekk ci silaay ci ak yu bëree bëri man yaakaar naa dajale woon na ci loxo jege fukk ak nàngam yoo xam ni yoo xam ni moom moom képp koo xam ni ak ak maandu <laughs> wala nga maanaam bëgg lu lu lu wér rek ngay wër dana doy ci yow moo tax kon jëmmi mawlid moom jullit ñëpp a commencé ijma la am ci borom xam-xam jullit ñi am na alxaafis Samsuddin ibn al-Jazari Samsuddin <coughs> ibn al-Jazari def na téere boo xam ne téere mawlid la tudde ko urfu taarif bil mawlid sharif moom it wax na ci say am solo dafa wax ne Abu Lahab abu lahab bi mu faatoo xam nga bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñee ba dafa nekkoon jaam bu jigéen ñi eh, abu lahab moo ko yëgal abu lahab nag ne ko sa mbokk ma am na am na gone mu seydina muhammad moom moom am na am na am na gone abu lahab nag bég ca ba goreel suwayba moom yi bég googu mu bégoon nag ci feeñ gi yonente bi feeñ daa tax bi mu faatoo nag ba am ay fan euh, maanaam abbas ibnu abdul muttalib moo ko gis bi mu ko gisee ci gént mu ne ko man day bisu altine bu ne dinañ ma woyofalal tuuti mbugal mi ay riwaayaat yu bare bare la Buxaari am na fu mu ko nettali ak ñeneen ak ñeneen maanaam bisu altine bu ne dinañ ma woyofalal euh, maanaam maanaam maanaam mbugal mi am boo xam dana ko danañ ma jox ndox ci sama loxo bi yaakaar naa ma ma barkeelu ci yu demee noonu daal nga xam ne moom bég gi mu bégoon ci feeñu rasulullah tax na saa yu guddi altine googu ñëwee te moom abu gis nga ko yàlla ci moom mu wàccew saar ci moom tabbat yadaa abi lahabi waaw nga xam ne yàllaa ko ngàññoom kooku xam nga mbirum mënta baax waaye te altine bu ne dañ koo woy fa dal mbugal mi léegi nag moom mu wax ne ida kaana hada kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fi ljahimi muxallada ata annahu fi yowmi lisnaini daiman yuxafafu anhu lissururi bi ahmada fama zannu bil abdi alladi kaana umrahu bi ahmada masruran wa maata muwahida moom kee moom benn yoon la bëgg ci rasulullahi rek gis nga altine bu nañu waye falal ko nun na nga xam ne at mu nañ nag ñu bëgg ci rasulullahi ci gàmm <laughs> moom xam nga kon moom moom moom noonu moom waxuma la euh, sawara moom dañ ko waxul waaye àjjana moom yooyu gën a kawe ca la ca la jëm bu soobee yàlla <laughs> amul sikk <laughs> moo tax kon rasul maanaam feeñu rasul ak gàmm lu lu lu lu leer la lu dëgër la loo xam ne borom xam yëpp ànd nañ ci seen kuréel su ndaw soo xam ne dañuy jaxase toujours ci diine ñoo ñoo ñoo koy wet te yàlla naftoo leen nag ñu bari coow rek xëy na waaye yonente bi moom bisam te suñu borom wax ne wa dhakkirhum bi ayamillah te ayamullahi bi ci gën a kawe moom mooy mooy feeñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga moo tax kon euh, jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bisam boobu noonu la demee di bis bu am solo bu mat a fonk boo xam ni sëriñ bi moom leeral nanu ko wax nanu euh, mboolem la ca xew ndax du bis du bis du bis bu du bis bu ordinaire fi ne du bis bu woyof fi ne maanaam li wax ne eh, sataa fu mu tàmbalee sataa xiina wulida xayru xayru nabiyin qad bada salla alayhi man man hada fuaadahu bilxikami nuurun azimun qad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummi alqura makkata xayri alxurumi maanaam bi yonente bi feeñee leer gu rëy rëy goo xam ne daa leeral adduna sépp ba ca xusuru Kaysar maanaam leeral li tàmbali Makka ba Saam maanaam nga xam ne guddi gi feeñ yonente bi sépp leer moom xam nga loolu maanaam ñu gis biddiw yi di feq di dem ak a dikk xam nga loolu xewal la maanaam mooy moo moo lay wane ne guddi gi bokkut ak guddi yee ko jiitu xam nga suñu seelu Mbàkke bu baax ma daana wax ne bisu gàmm ku ko yemale ak bis ba ko jiitu mbaa bis li ci topp rek xam na nu mu ko daa waxe maanaam waru waru waru ko yemale waru waru yóotu yem ci yow mukk ndax dañoo yemul benn aslan moom ndax yonte bi mu feeñee gis nga ci la maanaam adduna sipp leer sataa xiina wulida xayru nabiyin qad bala salla alayhi man hada fuaadahu bilxikami nuurun azimun qad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummi alqura waaw ah. mi ngoog iwaanu kisran sadaa xam ne bërëb yi nga xam ne dañ fa doon jaamoo yàlla dañ fa doon jaamu lu dul yàlla bërëb yooyu yëpp fi ne xërëm ya fa nekkoon yëpp dañoo tiit ba damm ba yu mag yi ci woon ci àdduna sépp itam kenn ku ne yëngu bañ xam ne tey guddi gi am na lu xew iwaanu kisran sadaa fiha wa qablu rufia samkun lahu wartafa nahwa samal mukatam hatta sarirun kasara li ajli hawlin atara min nuuri afdalin wala rabbi alayhi salim ak ndox yiñ doon sa sawara yi nga xam ne moom la moom moom la moom lañ doon jàmm ci ko yëpp gis nga yëngu fay sawaraw fay fa ndox ma ngiis ndox yi nga xam ne dañ leen doon màggal maanaam guddi googu kon guddi gu réeréy la goo xam ne maanaam goo xam ne xew-xew bu rëy da ci am ñaareel ba itam mu làmboo ci biiram ay ay secret yoo xam ni yoo xam ne euh, xëysa bi dajale ne ko ci ab téere moom la sëñ bi wayaat ci ci ci ci ci ci jasbul xulóob mooy li mu wax ne laylatu mawlidi nabi laylatu maxwi riyabi laylatu maxwi taabi wa tu wa tuhrisi taasumi maanaam guddi la goo xam ne ci lañ fare mboolem sikk yi wala ba guddi guy far mboolem sikk yi la day day far itam mboolem coono yëpp loolu mën naa mën mën nañ koo déggee ci ne l'islam ci la wàcc te l'islam moom moo indi mboolem luy dindi sikk yépp ak luy leeral xolub nit ki ak jëmmi nit ki ba teg ko ci yoon wa yàlla bëgg ba am mën a am ngërëmam nga xam ne bépp benn coono du ko jege loolu mën nañ ko firee noonu waaye eh, maanaam jëmmi maanaam si am na ci yoo xam ne suñu bi ko wax nga xam ne moom ci ki ko màggal moo ko moo ko am ci misaal li mu wax ne euh, mawliduhu muazzamu mubarakun muhtaramu tanzimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bihdiyaadul minat li muxlisin muazimi fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada wax ne nee na képp koo xam ne màggal nga ko deesu la xisaab ëllëg fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gadan faxtariman wa azimi maanaam ku ko màggal guddi goo xam ne ku ko màggal dundal ko kenn du la xisaab ëllëg mooy sa mbir kenn du ko lijjanti ëllëg boo faatoo rek fi ne dañu daal di yow jàllale moom nga daal dem ajana <laughs> nga xam ne yomal xiyam bu ñuy lijjanti kenn du lijjanti sa mbir waaw fala yuxaasabu gadan ak li mu wax ne faka shahidin shahida badran maanaam ku koy magal fa man yuazim mawlida xayril baraaya ahmada fakka shahidin shahida badran bi xayri wahami da ngay mel ne ku dee ci jihaad teewe woon it xare badar a sëñ bi lool lool loolu rëy na rëy na lool a yooyu du duy woyof daal maanaam loolu moom daa weesu nga xam ne tey kenn boo ci bëggoon a bokkit bu la ko pas sa pas-pas mayoon itam fi ne mënoo caa bokkati ndax jamono jaa weesu waaye daraja yi dee ci maanaam jihaad ci jamono badar loolu nga mën koo am ci dundal guddi yi nga xam ne ci la guddi gi yi nga xam ne ci la rasul am feeñ loolu gis naa ne lu rëy rëy la am na feneen fu mu wax ne fa innahu kaman xadar yawma xunaynin wa sabar da ngaa mel ni ku fekke woon xunayn xareb xunayn te xareb xunayn gis nga mooy ginnaaw bi ñu ubbee mag nga xam ne boobu dañoo bari waaye ñi ci ëpp mooy ñi waa màkk yi nga xam ne tey ne seen seen ngëm dëgërut ba mbir ma mettee ñu bari dañoo daw bàyyi fa yonente bi ak ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a gëm waaye maanaam eh, maanaam ña ña desoon nag yonente bi ak yonente bi ñooñee da ngay mel ne ku ca bokkoon yow ma xunenin wa sabar wa yow ma badrin wa nasar xeeral waral mu fahimi waaw ak li mu wax ne fa innahu qad zafira bi ma yudimul bushara wala yulaqi darara ak li wax ne fa man taaman hayya a liman lahu qad qaraa mubajiran fa xaba a xayraati ahlil himami waaw mboolem yiw yi nga xam ne ñoom la moom la borom yitte yu kawe yi amoon ci seen jëf yu baax ya mën nga koo dàmbe ci tey bu fekkee da ngaa defari xéewal jox ko ñi nga xam ne ñoo jàng mawlid xara a foofu nag mën a jublu ñuy jàng mawlid bi ndax sëñ bi nam ko la defee mooy dañuy toog am koo xam mooy jàng mawlid mawlid mooy nettali histoire u feeñu rasul sallallahu maanaam yooyu nag ay mawlid yu bare bëri la sëñ bi mu ci tànnul mooy mawlidul barzanji maanaam moom lañ daa jàng mooy bi ñuy jàng fii rek waaye fii dañ koy jàng ci arab ñu bari mën nañoo wax bañ a xam li ñuy wax waaye sëñ bi nag moom boo mag ñi ma àndaloon daanaka ñëpp ñu ci bari ñëpp dañoo déggoon li ñuy wax jamono ji nag ñu bari mën nañoo bañ a xam li ñuy wax ni waaye mawlid bi day nepp li feeñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak xar baax yi ci am ak ak ak lenn ci jikkoy rasulullahi sallallahu alayhi ak ngi ni demee mi ngoog ak it li mu wax ne jëmmi mawlid boobu buñ ko jàngee ba noppi tifli ko ci ndox ndox moomee nee na ku ca naan ku ca naan dalay fegal pexe pexem seytaane du yem ci loolu day leeral sa xol te day dundal itam sa xol dalay aar jox la itam ak kaaraange ak wér-gi-yaram maanaam sa saafara la itam ci jàngoro yi ci jàngoro yi kon maanaam guddi gi guddi gu rëy rëy ngi di laa lay wax <laughs> am na man gis naa foo xam ne sëñ bi wax na ne wax na ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu wax na ne am na secret boo xam ne de su koy nëbb ndax maanaam maanaam maanaam du jaadu ñu di ko feeñal ci biir nit ñi di ko wax kon mawlidul muxtaar loolu la demee rasulullah nag day ko yàlla tànn di ko yàlla fonk jëmm la joo xam ne moom ni ko yàlla fonke wax dëgg yàlla moom moom dara àggu ca fi ne ku ne xam ne ne jaam moom yàlla lañ koy def waaye genn leen rek lañ gis yàlla ci boom di ko defal di ko def moom muy julli ci yonente bi julli ci yonente bi jaamu yàlla boo xam ne yàlla ci moom da koy def te yàlla moom la ñuy jaamu moom jaamu yàlla yëpp moom lañ ci jublu xam nga amul lenn loo xam ni fi mu ne maanaam moom yàlla da koy def ndax moom la ñuy jaamu xam nga julli yeeg woor yi moom lañ ko defal moom dara waru ko moom lu may moom moom xam moom ñun ñëpp moom la ñuy jublu di ko jàmm moom nag mu am genn ci jaamu yàlla gum tànn ne da koy def te mooy julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi moog malaykam yëpp dañu maase di julli ci rasulullahi maanaam loolu lu rëy la benn jaam rek jaam boo xam ne yàlla ak malayka yëpp dañu maase di julli ci moom loolu sëñ bi dara gën ko rëy bu pare nag yëmu ci woonu nun ñëpp nag yaa ayyuha alladina sallu alayhi wasallimu taslima waaw kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla fonk la waaw moo tax yàlla tànnal ko fi ne tey suñu borom da ko dafa yonente bi wax na ne mboolem nit ñëpp bañ nekkee ay xeet yàlla daa tànn xeet wa ci gën ci biir xeet woowu mu tànn giir ga ci gën giir googu mu tànn mu tànn xabila ba ci gën xabila boobu mu tànn dégg nga maanaam maanaam maanaam famille ba ci gën noonu la ko toppe di tànn di tànn wax ne ana xiyaarun min xiyaar waaw moo tax Sëñ Tuubaa daa wax ne yàlla ko tànnal njaboot gi jaar ay maamam ak ñam jaar ba ba ca aadama ba ni feeñe ñuñ tànn lañ kenn ku ci yéefar mësta am ñëpp ñu baax lañ ay jullit lañ woon ñu gëmoon yàlla Sëñ Tuubaa daan wax ne abaawu ahmada na aw anit danas na aw anit danas dañoo sori taq-taq ak tilim tilim waaw ak lu bon li xayrihim dabbal laayinu il xanas maanaam iblis ak ak ak li muy bari bari pexe musta amu yoon ci mboolem ñi nga xam ne ci ñoom la yonente bi jaar ci ñoom waaw wax na ne ataahu man usulahu turran xaras dikran bihi afxama kulla man daras maanaam usul ay usulam mooy mboolem ñi mu feeñe ñi mu jaar yàllaa ko sàmm loolu la sëriñ bi wax moo tax sëriñ moom dara wax ni moom mooy at tahiru bnu tahiri yaakaar naa ci xattaab fa la wax ne yaa tahirul xasan ibna tahiril xasan ibni tahiril xasan ibni tahiril xasani tahir niil yowma min zambin gada kabali yow mi nga xam ne da ngay ku laab di ku sell te taaru di doomi ku laab te sell te taaru kookee di doomi ku laab di ku sell te taaru noonu la ko toppee eh, sama yëpp noonu noonu lañ demee sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla da koo tànn wax ne waxuwal karimu alladi ma zaala muntaxaban min saadatin kullu fardin minhumun faxama maanaam yàlla da ko mas di tànnal ñami jaar waaw waxtu wu ne xam nga suuf si maanaam waaju baax du fi jóge mukk waaju baax ju sel nitu yàlla nitu yàlla yi am na am na lu ñu tudde ay aq al qutbul xaws mooy ñoo xam ne tey daanaka ñoom mun ñu ñàkk ci kaw suuf xutbul xawsu boobu mooy daanaka ki jiitu ki gën a kawe ci nit yàlla yi ci kaw suuf day am imaamaani ñaari imaam yoo xam ni yoo xam ni bu fi xutba bi kenn ke koy wutu imaamaam imaamaani ñu wut ñeneen keneen ci abdal yi ñu ay abdal ay awtaat yëpp ay darajaat la yoo xam ni suñu borom la wax ci alxuraan ne hum darajaatun indallahi xam nga lahum darajaatun boo ko teg hum darajaatun indallahi léegi moo tax suuf si moom loolu mosu fee ñàkk léeg ñu feeñ léeg ñu nëbb am na jamono yoo xam ne lépp kiifar mën naa mën naa not ñu nëbb ba kenn duñu xam kiifar ga gën a gën a gën a gën a dëlli sax nga ne fa la gën a bare kiifar gën faa sax foofu sax mën nañu faa nekk masalan waaye kenn du leen xam moo tax loolu mos dañ ci kaw suuf suuf moom waxtu ne am nit ñu baax ñoo xam ni ay mën na nekk sax ab yonent nabi xam nga nabi moom man am na yoo xam ne dañ leen a yónni am ñoo xam ne yónni wuñu leen nubuwa dafa am nubuwa amma ak nubuwa xaasa nubuwa amma ku ne mën na cee dugg yenn borom xam sax wax ne ne ginnaaw yonent sax nit mën na ci àgg ndax mooy moom ab tolluwaay la ci jege yàlla nubuwa waxa ni ci suñ borom da nga jegee ñal ko boppam ba jiital ko ci kanam bi e, nit ñi malayka yi man di jëflanteeg moom comme si soxna soxna soxna soxna soxna Mariama soxna Mariama xam nga du du ku yàlla du du du yonent waaye am na ñu koy saxalal nubuwa am bii nii ndax malayka yi dañoo wax ak moom id qaalatil malaikatu ya mariam inna allaha stafaaki wa taharaki wa stafaaki ala maanaam boolem li yàlla defal ko yonent lépp def na ko moom karaamaat yi gis nga xar baax yi feeñ ci moom ci Zakariya bi mu ñëwee ci moom fekk fekk fekk fekk maanaam moom fi mu tëju di fa jaamu yàlla xéewal yi ay fur wi ñu ñu def ko fa indi indi ko fur wi yoo xam ne day dafa dafa mel dañ ko dañ ko watt léegi te foofa amul fenn kenn ku fay yéeg ba ku indi fur mu ne ko lii ku la ko ko jox mu ne ko lii yàlla xéewali suñu borom la gis nga hunaalika daa Zakariya Zakariya daa xam ne daa xam ne ginnaaw kii waaju baax la kon fii bërëbu ñaanu yaa ñaanu ñaan ñaan suñu borom la mu daal di ñaan suñu borom ngir yàlla may ko doom ndax mosu ko mi ngoog kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam noonu la ko suñu borom mas di tànnale amu jaar ni ko sëñ bi waxee nadbun karimun min al axyaari wal kurama xurrun wala xurrin jahaajiha xurrin fadluhum azuma qadustu fii min xiyaarin ma ata ahadun minhum bi ma yuxjilul axyaara wal uzama yàlla ko def muy ab tànneef bu bàyyi ko ci ay tànneef ñamu jaar ñépp nag nee kenn ku ci mas a def lu lu jur gàcce mbaa luñ mën a sikkal amut waaw dinay wax ne fi mu ne abu abdul muttalib xam nga kutub téere siire yi moom siira fi ne kenn ku ne mën na ko bind kenn ku ko bind fi na nga gisee siira rek noonu ngay bind fi ne fi ne noonu bu ñuy waxtaan siira fi ne dañ ko waxtaan ci anam goo xam ne am la ñuy wax <laughs> waaye am na ñoo xam ni seet nañ ko dégg rek nga xam ne yonente bi fi ne tey cheikh Bouti laa gis Mouhamad Cheikh Ramadan Bouti laa gis mu wax ci tabaxaat yu mujj ci ci ci ci ci ci fiqhu siira mu wax ne moom mas nañ ko maanaam mas nañ ko bëgg fay ngir mu bind siira ci anam gi nga xam ne moom la moom la ko ñenn bindkat yi bind fi ne am na bindkat yoo xam ne comme Haykal ak ñu demee noonu nga ñoom yonente bi da nga liir téere ba tey waaye xarbaax yonente bi yëpp duñ ko ci tudd moom ñoom yonente bi moom ab abqari la ñuy wax abqari yun maanaam ñu demee noonu la ñuy wax waaye yonente bi du abqari yonente bi nabi xam nga mooy koo xam ne daan yàlla nee na xam nga loolu suñ maanaam maanaam bokkut ak ab abqari koo xam ne xel may ñëw wala yéen demee moo tax nag moo tax nag jëmmi eh, jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi ñi bind ci siira loolu la ci am ak ñi koy nettali nga xam ne mën nañ lay li te abu maa ngi doon ñëw ci si si Abdul Muttalib Abdul Muttalib mooy maamu yonente bi nga xam ne ñëpp fi ne ñuy bind siira dañu xam ne ñoom kan ay yéefar lañu woon nangam waaye waaye waaye Abdul Muttalib ba ba ñëwee di di di bëgg màbb bëgg a màbbu Kaaba gi te Abraha ñëw ba jege Makka xam nga buur yu njëkk yi dañ daa defe rek ñoom buñ dee dox moom jur guñ taseel koy jël <laughs> dañ ko jëfandikoo dañ luñ taseel jël ko moom buur yu njëkk yi ci tooñ lañ nekkoon mooy gaañ ñi daa defee rek waa waa Kajoor gi li ñu wax ne Sera Ndonga Ndiaye baa mu mbaa mu jël ak dooleem maanaam tey gétt goo dugg moom nga jël gétt gépp Abraha noonu la def maa romb jurug Abdul Mutalib mu jël ko Abdul Mutalib dem ci moom di ko laaj ak juróom mu ne ko yow yaay yaay boroom dëkk ba ma ñëw di màbbu kaaba nga di ma laaj sa sa xar yeeg sa bëy yi xanaa kaaba gi ñuurul la mu ne ko ah kay bëy yi maa ko moom waaye li li kaabati rabbun yax yaxmihi lil kaabati rabbun yaxmihi xam nga rabbun yaxmihi loolu du shirk loolu maanaam loolu xam nga ngëm gu leer nañu la waaw loolu loolu loolu moom ngëm gu leer nañu moo ci feeñ lil kaabati rabbun yaxmihi xam nga mënoon na ko lil kaabati laata wa uzza wala yooyu déedéet maanaam nekkut woon ci loolu ku baax la woon <laughs> moo tax Sëñ Tuubaa moom day wax ne moom koo xam ni jàpp nga ne yonente bi moom gënut ci nit ñi bay ko wut itam ci ñi nga xam ne ñoo maanaam ay tan nee na yow tuskare ñan nga ñan nga suñu tubaab day móolu ñi nga xam ne dañuy jàpp ne yonte bi <laughs> ci ñoo xam ne mën nañoo mën nañoo nekk ay musrikoon ay déedéet ñoom ay ñu baax lañ tabban liman ankara kawnal muntaqa muhammadin ah, xayril xayral baraya mutlaqa moo tax sëriñ bi ba jàngal nañu ba tàyyi askanam wu sell wooy boo ba demee ci almasar bu shaafi da ngay gis mu wax ne muhammadun sayidul atbaai wa ruasa al mustafa al mujtaba saafi min al kadari ذاك الكريم الذي ما زال منتخبا من أفضل الناس من مذ أنساه ذو القدر ندب كريم سليل من كريم سليل من كرام خيار سادة العسر tànneef la boo xam ne dañ koo dañ ko tànne mu bàyyi ko ci ñu baax ñooñu ñu tànnaat leen ba ñu bàyyi ko ci ñu baax noonu lañ ko toppee ba ci sayidna Adama qad istufi min shirafin ma ata ahadun minhum bi fahishatin turwa an il athari bal kulluhum min nikahin la sifahin kama haka zawul ilmi wal irfani ñoom ñëpp ku ci mas a sax ci sëy boo xam ni du sëy bu dagan bu dëppoog ni ko yàlla bëggee fi ni amul mboolem ñi meññ rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam foofu ci wax nag ñi nga xam ne ñoom la ñoo ñoo meññ rasulullahi muhammadu najmu abdillahi man nasabu li shaybati alhamdi najli hashim hashimin alwazari wa huwa ibnu abdi manafin ibni qusayin wa daaka ibnu kilaabin ibni murrata axi alxafari wa huwa ibnu kaabin salilan <coughs> li lu'ayihimu daaka ibnu gaaliba najli fihrin aldamiri wa huwa ibnu malikin almacrufi muntasiban linnadri najli kinaanatin axi alfajari وذاك نجل خزيمة بن مدركة سليل إلياس من ينمى إلى مدري وذاك نجل نزار بن معدهم سليل عدنان ذا المحفوظ في الخبر loolu mooy maam yonte bi li nga xam ne moom wér na ci la ko la ko jiitu nag loolu ay wuute la ci am la ca topp jëm kaw ngok sëñ bi nag teg ca ne wa huwa alxabibu alladi min ajlihi xuliqat xalaiqullahi kan am laaki wal bashari <laughs> maanaam mooy sopp bi yàlla bi nga xam ne moo tax yàlla sàkk mbooleem lu mu sàkk mbindeef yëpp li tax yàlla sàkk leen mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu it noonu ko suñ bi waxee loolu noonu la ko yonent bi waxee imaamul xaakim indi na ci xadis boo xam ni mooy xadis bi nga xam ne moom la seyd sayidna aadama alayhi salaam ba mu defee mu def ba yàlla wàcce ko ci kaw suuf nee dafa ñaan suñu borom ci barkeb Sayyidina Muhammad ngir mu jégal ko suñu borom daal di koy jégal ne ko foo xamee kooku mu ne ko damaa xool bi nga xamee ne sàkk nga ma te bàyyi ma ci pay yi damaa def fu ma geesoo damay gis boo defee la ilaha illa dañuy def muhammadun rasulullah ma xam ne sa turu sell wi kat koo ci toppatoo rek kooku sopp nga ko moo tax ma ñaan la ci barkeem mu ne ko nag kookee bu dul woon ak moom du ma la sàkk wala riwaaye boo xam ne wax ne bu dul woon ak moom du du ma sàkk mbindeef riwaaye boobu xaakim wéral na ko mi ngoog sëñ sëñ mag bi wéral na ko ndax wax na ko mi ngoog ndax yemul ci loolu sax xala wa huwa alxabibu alladi min ajlihi xuliqat xalaayiqu llahi kal amlaaki wal basari wa kassamaawaati wal ardina qaatibatan wal barri wal baxri misla riixi wa shajari wa hakada aljinnu aydan maa bahaimiha wa kal jamaadaati misli nabti wal xajari min nuurihi kullu nuurin saatiin bi sana nuuru nujumi wa nuuru shamsi wal qamari yonent bi sallallahu alayhi na ne xadis bu wax naa ba tey ne borom xam-xam yi ñoom wax na ne saxa kasfan mooy leeram moom moom xadis bi jaabir nett li jaabir ibnu abdillah wax ne daa laaj yonent bi lan la yàlla njëkk sàkk mu ne ko nuura nabi yi yaa jaabir nuura nabi yi yaa jaabir xadis boobu borom xam-xam xadis dañ ko woyfal waaye nit it sufiyanke yi ak aarifuna billahi yëpp wéral nañ ko moom eh, nañ mooy moom ak leeram la yàlla njëkk a sàkk ci la sàkk itam mboolem lu may lu may moom moo tax su fekkee di di wax aadamul mulki ak aadamul malakut maanaam arwaax yi aadama aadama aadamu arwaax moom mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam aada aadamu nag abul bashar nag nga xam ne mooy alam bi ñu ne nii ak jëmm yi nii seen baay ñoom mooy mooy aadam bi nu xam aadamu nabi waaye alamul malakut wala la jiitu moom arwaax yeeg loolu la ko jiitu loolu ka ci jiitu aadam mooy ki jëkk rek su ne daanaka aadam mooy nit ki njëkk arwaax yi tam nag ka ci jëkk nag mooy ruuxu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam ne tey ruux di moo leen moo mooy seen kilifa mooy seen baay annabiyu awlaa bil mu'minina min anfusihi wa azwaajuhu ummahatuhum mi kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam noonu la deme woon di jëmm joo xam ni eh, di jëmm joo xam ni xëy na bisu gàmm ba dinañ gën a mottali waaye sëriñ bi moom melal nanu ko wax na ne jëmm ju taaru la amee woon nabi yi nabiyun jëmmalallahu zaatahu maanaam suñu borom ci moom moo moo taaral jëmmam ja kama ahsana al axlaaqa bi tuxri wa ruqi nga xam ne ni jëmmam taaroo noonu la ay jikkoom taaroo xalqan waxul waxul xan xulqan nu mu ko waxee ca ci jës bu waxul huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura walan yura fi chiyami waaw mooy jëmmam la joo xam ne yàlla ci moom moo sotti mboolem lu di taar ci moom maanaam mooy ki gën a taaru ci jaam yi gën a rafet ab xar nga xam ne ku ko mas a mas a mas a xam rek doo ko mën a doo a muñ wajhu nabi sëñ bi sëñ bi wax na ne wajhu nabi anwaru min badrin wa min kulli munirin fa huwa bil madxi qamin wax na ne xar kanam bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a leer mboolem luy leer yonente bi leer googu yi ñuy wax ci xar kanam am na ci loo xam ne leer gu ñuy gis la maanaam leeru leeru leeru leeru saayir la am na loo xam ne leerug saahir la ndax wax nañ ne soxna Aïsa radiallahu anha mas nay yor pusaam di di nas mas naa yor pusaam di ñaw yàlla dogal pusa bi maanaam làmp bi daanu pusa bi rot maanaam gisul li li li muy nas yonente bi dugg si nag bi mu dugg si rek lee xar leeru xar kanam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci la niitu ba nas ci puso <laughs> nee na bi mu ko nasee ba noppi ne ko yow day abu kabirinil hudali la mu waxoon de bu la gisoon dana xam ne yow day yaa yaa ci gën a yey ci ci bayitam woowee waaw bayit bi teewlu ma ko yaakaar naa wax nañ ko ba tey waaw waaw li nga kon loolu mooy li sëñ bi wax ne wajhu nabi anwaru min badrin wa min kulli munirin fa huwa bil madxi qamin wajhu nabi dil mazaaya al afyadi axjala shamsan muxjilan badrayan loolu sëñ Tuubaa wax na ci lu bare bare bare bari misaal na ko itam mm, ca jës bul xulóob yonente bi sallallahu alayhi wa moo fi ne saxaaba yi dañ ko warmaaloon loolu lépp waxtaan nañ ko yàlla ci moom moo leen digal ñu warmaal ko ne leen ku fi ne ci wetam sa kàddu gën a kàddu gën a kawe kàddoom say jëfay yàqu waaw laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baad an tahbata amalukum maanaam seen jëfa yàqu xam nga waxut ne day am bàkkaar mu mën na da ngeen am bàkkaar fi ne naan sàngara ak yooyu yëpp fi ne boo ko dee bàkkaar ngay am waaye sa jëfe ji toon moom yàquwul waaye bu sa kàddu gën a kawe kàddu gu rasulullah fi jotaayam maanaam sa jëfe yàqu xam nga jëmm jooju sëñ bi maanaam jëmm ju jëmm ju yàlla fonk la lu nga innal ladina yunaadunaka min waraa'il hujuraati aktharuhum laa yanqiluna ñu lay jooru di wax Muhammad Muhammad ne ñoo ñoom dañoo ëmmatub xel ci moom waaw mi ngoog ñi nga xam ne itam inna alladina yaxudduna aswaatahum inda rasulillah ulaika alladina amtaxana allahu qulubuhum li taqwa maanaam ñi am taqwa dëgg rek mooy ñi nga xam ne buñ toogee fi ñoom dañuy sàmm teggin buñ toogee ci rasulillah dañuy sàmm teggin duñ yëkkati seen kaddu moo tax fi ne ñi ko ñi ko melal bariwul fi ne mutuñu fukk ak juróom daanaka wala ci dañu toll ñi ci gën a siiw mooy Hind ibnu Hind ibnu Abi Haalata ak Seydina Ali ibnu Abi Talib eh, moom moom yonent bee ko yar ndax soxna son doomi soxna Xadija la radiyallahu anha ak ku mel ne Seydina <clears throat> Anas ibnu Malik itam ak Seydina Ali ibnu Abi Talib mi ngoog daanaka ak ak ñu néew a néew rek ñoo ko melal waaye niñ ko melale moom mën na maa jeexale foofu nu barkeloo ko ci jëmoom ju sell ja mooy dañ daa wax dañoo wax ne jëmm ju ju ju ju rafet la amoon euh, jëmm ju màgg la itam maanaam boo gisee nii du ko tuuti ba nga xam ne maanaam da koy xeeb ci jëmm ji waaye du ko rëy itam ba am yaram ji ñuy wax fi ne mujjug dundam nag la xaw a am yaram tuuti waaye aggul ci am yaram bu ëpp yaram bu ëpp woo xam ni maanaam maanaam maanaam maanaam day day day gàkkal doomu xar kanam itam ñi ko melal ñëpp dañuy wax ne xar kanam bu bu bu leer la amee woon waaw guddul woon itam waaye gàttul woon itam digg bi nit la li ñuy wax digg bi nit waaye li ci yéemu mooy ku masa fi ne nit ki nit ku njool lu njool njool bu ngeen àndee di dox ku leen seen day wax ne yonente bee ko sut <laughs> bu toogee ci biir ay nit itam ñoo xam ne dañoo dañoo njoole nii itam moo leen di sut ba tey waaye tey bu bu bu ña ko ña nga xam ne ñoo njoole bu ñu fa jógee day delluwaat di digg bi nit rek nga xam ne boo gisee doo ko xamee <laughs> moom ci moom sax dana wax ne ju'ila al xayru fi ribaati nga mu nekkoon jëmm joo xam ni <clears throat> fu toogee nit itam mbaggam mooy sut sa mbag waaw ak loo njoole njoole dënn bu xaw a yaatu la amee woon waaye agul ci réy bu ëpp nag sallallahu alayhi wa sallama ñaari mbagg yi itam dañoo xawoon a sore baida ma ma bayna man ki bay nii xar kanam bi itam lex bi itam li ñuy wax ñuy wax lex ci moom itam lu lu ratax la woon loo xam ni dafa tàlli amul dara ñagas ñagas wala gàkk-gàkk wala gëgëstal bu bu ci nekk kawar gi ma amee woon itam kawar gu ñuul kukk la woon maanaam ay bijaaw bëriwu ko woon li ñuy wax xun fuqa lii nii ci ron tuñ wi loolu moo amoon moo amoon moo amoon na ko te amoon na bijaaw waaye kawari bijaaw moom dañ ko daa wàññi jëmmi ay bëtam itam maanaam bët yi li ciy weex day weex tal li ci ñuul ñuul kukk waaye teewul am na nag lu mel ne sidit gu xonq gu nekkoon ci biir bët yi waaw mbicc bët yi itam kawari dafa dafa amoon karaw maanaam li ñuy bët yi nii bët yi petit maanaam mbicc yi nii xefi xefi xefi xefi dafa am dafa dafa amoon karaw mi ngoog mu amoon nag li ñuy wax bakkan bu jekk bu bu tolloo bu yem boo xam ni ëppul yéesul ba tey ay bëñam itam noo noon nooni nooni la deme woon nga xam ne moom dafa weex tàll amoon itam li ñu li ñuy tuddee sàkkara sàkk sàkkar yàlla mooy mooy diggante bañ yi waaye nag bu ma saa di wax day mel ni ak leer day day day bàyyi ko ci bañ yi di génn moom rasul day sallallahu alayhi wasallam maanaam bu ma saa di wax eh, ni ko eh, imaamu tirmisi nettali ci samail mooy ida takallama ru'ya kan nuuri yaxruju min bayni sanaayaw bañ yu jëkk la amoon yu yoo xam daa tegaloo ragaloo waaye amoon ay diggante maanaam li ñuy wax sakariyaan am amoon na ko waaye lu mel nag leer dadaa dadaa génne ci ci ci ci bëñ yi ay tuñ nag moom dañoo ne moo ko gënoon a jëkkale ci kaw suuf ni yàlla binde maanaam li ñuy wax gémmiñ ci moom loolu moom mooy ko gën a jàkkale moom ahsana ibadillahi shafateeni wa altafahum xatma fat xatma famin noonu <coughs> la abu nuaym wax ci dalailun nubuwa nubuwa mu nekkoon koo xam ne itam mëneesut wax ne daa xonq wala daa weex mbooleem xeeti couleur yëpp la ko yàlla dajale daanaka nga ne weex goo xam weex boo xam ne dañ koo jaxase ak xonq ak itam li suñ di wax maanaam maanaam maanaam sumra mooy mooy ñuul xeeti couleur yëpp daal moo dajoo ci moom xam ne mëneesut wax daa weex wala daa xonq wala daa xeereer mi nga jekkoon ab taxawaay Eh, cër yi itam jot sëkk eh, loxo yi loxo yi itam dafa dafa saxoon karaw loxo mi dafa saxoon karaw waaye maanaam li ñuy wax dënn ci moom amutoon karaw yenn karaw rek moo saxawoon ci li tàmbalee fii ci njëlbeen gi ba ca ba ca li wax li ñuy <laughs> yooyu yëpp nag bu dee ci nun ñi rek sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon koo xam ne itam eh, ab loxoom ni loxo bu loxo bu loxo yaatu la waaye dafa nooy nepp ndax sayidina anas ibnu malik wax na ne ma masastu xazan qattu wala xariran alyana min kaffi nabi sallallahu alayhi wasallam nee na maanaam mësuma teg loxo ci lu gën a nooy eh, maanaam loxo bu rasulullah sallallahu alayhi du xariir du leneen xariir mooy mooy sooy sooy xam nga day nooy waaye li muy nooy nooy loxo rasulullah yi moo ko gën a nooy na mu nekkoon koo xam ne itam ndëggoom itam fi ne fu mu masaa bu daa dox dox bu gaaw lay dox waaye ndëggu li di digg ndëggu li du àgg suuf du àgg du daal suuf mu ngoog ab jéegoom nag jéego bu yaatu la la daa doon waaye du loo xam ne moo ko ci jublu noonu la doon doxee moo tax ku masaa àndal moo lay raw daawut geesu itam waaw daawut geesu eh, te itam bu masaa di naan itam daawut def li ñuy wax gëndax li day naan ñetti ñetti ñetti góox day day góox teggi góoxaat teggi noonu noonu lay naan loolu sax mooy sunna na ñu ko xamee bu masaa ànd ak mbooloo itam daw leen bëgg a jiitu benn mu nekk seen digg wala mu nekk ci ginnaaw ndax dara wax ne xallu <clears throat> zahri lil malaikati loolu la daa wax Euh, mi nga kooku daal mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sayidna abu hurayra wax na ne musuma gis lu mel ne moom cib taar musuma gis ku mel ne rasulullahi cib taar waaw musuma gis it ku ko gën a gaaw cib dox dafa mel ne suuf si dañ ko koy taxaw taxa taxañal waaw euh, nee na itam mës am mësta am takk ndeer fi takk ndeer dawu ko am loolu danoon leeru kese moo tax mu saa dox fenn kenn gis takk leeram bokk na ci di gën a yéemu itam guddi gi itam même bu làmp buñ ñu fay làmp yëpp ni muy gisee ci bëccëg noonu la gisee ci guddi sallallahu alayhi wa sallam weñ yi itam dawuñu dal ci kawam xam nga leer ak leer fi ne xam nga moom moom moom weñ mënu cee dal <laughs> weñ li mu dal mooy jëmm jëmm jëm suñu jëmm matériel yi loolu da mën moo tax ummu mahbad moom it misaal na ko misaal yu leer wax ne wa moom it xëy na loolu dinañ ci gën a ñëw incha allah ci jataay ci topp kooku daal mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi moom wax nañ mën nañ mën nañu wax ne mbindam yëpp moom rek la ci tagg wa huwa alkarimu alladi laada alkiraamu bihi lamma daraw annahu faaqa alwara karama wa ma mada min raisin xaaza martabatan illa wa laaza bihi kay la yara alama أجداده الكرماء لازوا به وحووا به المقامات والتقريب والنعماء لنوره سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما للمصطفى خير خلق الله قاطبة ما لم يكن لرئيس شأنه yàlla yàlla taas ci barkeem te defal nu tawfeex yi nu mën a màggal bis bi ci anam ga nga xam ne moom la yàlla gën a gërëm te gën a dëppoog ni ko sëriñ bi bëggee ci daraje Serigne Touba kon mën nañu jël benn laaj wala ñaar bu kenn doo ko mottali jotaay bi waxtu bi nag dama ko dama yor li koy natt moo tax mën naa li ma ci waxoon rek laa ci wax <laughs> wax naa ne man ahdasa fi amrina hada maa laysa minhu maa laysa minhu mooy lu ci bokkul xam nga lu ci bokkul loolu loolu mooy bidaa lu ci bokk kon du bidaa xam nga xam nga yonte mi wax ne man man sanna fil islami sunnatan xasana xadis mi ngi mi ngi ci sahihu muslim maanaam man sanna fil islami sunnatan xasana xam nga dafa am lu ñu tudde sunna xasana maanaam ku sos ku sos sunna su rafet jëf ju baax ne na falahu ajruha wa ajru man amila biha ah da nga am tuyaaba je ku la ca roy dana am tuyaaba je xam nga loolu kon moo lay xamal ne kon du lépp lu luñ sos ginnaaw yonte bi rek bidaa la xadis boobu moo moo loolu loolu lay tekki ñaareel bi itam sayidna Omar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yi ñu def salaat tarawih xam nga yonte bi ci jamonoom kenn ku ne sa kër ngay jullee sa néeg ngay jullee say naafila Seydina Omar moo ñëw wala jàkk sax daa lañ fa julli waaye kenn ku day julli sa julli bopp Seydina Omar moo ñëw wutal leen jenn imam ñu ñu ñu ñu ñu koy ñuy julli ci ci ci ci ginnaawam loolu ba mu ko sosee da caa teg ne ni'matil bid'atu haadihi ne lii biddaa bu rafet la maanaam biddaa du lépp lu yonent bi defut rek fi ne maanaam bokkul ci diine de loolu ku la ko wax xamul xamul diine ci moom <laughs> xam nga loolu tegtale wut ne santaane na ko waaye tegtale na ne maanaam maanaam màggal bis boo xam ni yéen bis bi yonent bi feeñoon maanaam màggal ko ak ak ak fonk ko ak dundal ko loolu baax na loolu lay tegtale maanaam ginnaaw moom bis bi mu feeñ nee na ci laay woor ci moo maanaam bis bi dama cee feeñ moo tax ma ma koy woor du loolu la wax ah, loolu kon tegtal maanaam bu tegtal bu ko déglewut itam mm-hmm. tegtale na ne màggal bis bi yonente bi feeñ loolu lu baax la ndax yonente bi daana ko def loolu loolu ko ci ah. dégg nga ñaareel ba itam xam nga loolu maanaam maanaam maanaam yi bari na man dajale naa ko yaakaar ci bërëb yaakaar waxtaan nañ ko sax ba tey am na fu ko dajalee wax wax ci lu bari maanaam xam ñooñu ñooñu ngay tudd noonu ñooñu mm-hmm. ak ñe mboolem ñi koy weddi yë yëgguñu yëgguñu benn ñaareel ba itam junni at ya weesu maanaam yonte bi jamono gàddaay gi ci moom saxaaba yooyu ba ci bañ ko tàmbalee def moom mawlid bi ba ni hijriyee bi taarix hijriyee am am junni at amul benn borom xam-xam bu mag bu ko weddi fi loolu rek dalil la ci maanaam borom xam-xam lépp luñ ijmaa lépp loo xam ne am na ijmaa ci borom xam yi ñëpp dëppoo ci loolu loolu dañuy xam ne lu baax la yonent bi wax na ne laa tajtamiu ummati ala dalala wa kama qaala alayhi salaatu wasalaam maanaam xeet wi <clears throat> duñ maase daje ci loo xam ne ak réer la ak lu bon yaa ngi dégg te mbooleem borom xam yépp maase nañ ci def kàmm mi ngoog ne

wax naa ne wax naa ne benn misaal rek bu gaaw yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo wax ne qul bi fadlillahi wa bi fa bi dalika fal yafraxu bu ngeen dee bëggee ci rahmatullahi ak bi fadlihi rahmatullahi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mooy innama ana rahmatul muhdaatu loolu moo ko wax <laughs> wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin loolu loolu loolu yàlla ko léegi ba tey suñu borom moo ne kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nusabbitu bihi fuadak maanaam mawlid mooy lii rek fi ne mawlid dañ ko mooy nit ñi de toog wax dund ak yonente bi salaam net li ko dafay berne xew séddale ko maanaam yooyu noonu benn benn yooyu noonu loo ci mën a weddi amul mënoo weddi jàng alquran mënoo weddi wax taan ci siira yonente bi salaam mënoo weddi joxe xewal itaamu taam yooyu mënoo ko weddi loolu nag wutal ko bërëb mënu ko wutal ko bis ak jamono loolu mënu ko mënu ko xaraamal yaa ngi dégg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xéewal yàlla ci wax nañu ne xéewal la gum nu baaxee laqad manna allahu ala almu'minin id ba'atha fihim rasulun min anfusihim mi ngoog euh, ba tey li ma loon wax léegi te mooy ijma da cee am maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ci kitaabul i'tisaam wax na loolu sax day day gën a guddal waaye dafa am asar boo xam ne day wax ne maa raahul muslimuuna xasanan fa huwa indallahi xasan wa maa raahul muslimuuna qabihan fa huwa indallahi qabih lépp loo xam ne jullit ñëpp dañ cee maase xam ne loolu lu yàlla gërëm la maanaam jullit ñëpp duñ maase ci leen te ijmaa daa am ci gàmmu tey alxaafis ibnu daxiyata masalan ku ne xam na ko ab xaafis muhaddis bu mag ak lu mel ne Cheikhul Qurra Samsuddin Ibnul Jazari nga xam ne mboolem ñi jàng xiraat yëpp ci moom la ñuy dal nga xam ne moom gis naa la wax naa la téere bi mu ci def léegi moom fa taxrif masalan alxafiz alqasalaani ibnu hajar alqasalaani masalan ak ku mel ne alxafiz saxaawi ak ibnu hajar alasqalaani ak euh, zeynuddin ibnu abdulkarim ibnu hasan ak ibnu kasir masalan alxafiz ibnu kasir ibnu rajab alhambali ibnu nasir diin dimasqi ak ku mel ne alxaafis suyuti masalan abu shaamata ak addaybaay ba ba ba ñi nga xam ne ay fuqaha lañ ku mel ne ibnu xajar alhaysami masalan yaa ngi dégg ñii ñëpp kenn ku ci ne bind na ci gàmm saxal ko yaa ngi dégg ba ci alburqini siraaju diin alburqini ak muctaqid al maghribi burhaanu diin ibni rifaata ak ibnul jawzi abul faraj abdurahman ak ku mel ne ñii ma la wax ñëpp fi ne njëkk junni at lañ maanaam mi junni at yi nga xam ne ci gàddaay gi ñoom ñëpp moom lañ ñoom ñëpp saxal nañ ñaari borom ñaari borom xam yi nga xam ne yi nga xam ne yi nga xam ne ñoo ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko saxalut ñooñu kenn ki mooy euh, Shaatibi masalan imaamu Shaatibi moom moom moom bokk na ci nga xam ne dañ ko weddi moom imam Saati moom weddi na ko weddi weddi yaa ngi dégg ñu ngoog ak kan ak Omar Cheikh Omar ibnu Ali ibnu Salim al-Laxami la sax moom ab Suufi la sax moom ay tuur da ko weddi ñaar ñoon ñoo ko weddi weddi gu wér dafa am ñoo xam ne dañ cee wax ñaari wax ku mel ne tey ibnu Taymiya ibnu Taymiya da ko da koo saxal ci bërëb weddi ko ci bëri Ibnu Taymiya waxam yëpp noonu la daanaka lu wax leen day wax fii lii wax wax fële la ci des fi ne tey ci iqtidaawu siraatal mustaqim ci iqtidaawu siraatal mustaqim wax na ci ne fata fa taadimul mawlidi wa ittixaaduhu mawsiman qad yafaluhu baadu nnaasi wa yakunu lahu fihi ajrun azim li xusni qasdihi wa taadimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw maanaam am na feneen fu wax ne maa yuxdisuhu baadu naasi imma mudahatan lin nasara fi milaadi isa alayhi salaam wa imma mahabatan lin nabi loolu mooy ñun xam nga ne mudahat lin nasara xam nga dugalun ci gàmmu liñ ci dugal mooy <laughs> mooy mahabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam moom ci dugal xam nga Ibn Taymiya moom daa wax ñaari wax moo tax ñenn ñi di sukkandikoo ci ay waxam yenn wax yenn wax ji mu wax jàpp ne da koy dàq mi ngoog di di sukkandikoo ci li mu wax ak bi moom it da cee wax wax joo xam ni daal daa diingat yi nga xam ne neexut yàlla ci te nit ñi di ko def ci biir gam waaye moom daqul gàmm waaw ñi nga fi xamaan nag ñuy wax nag mooy suñu ko daal gi ay jànkat lañ ne noonu rek dañuy gëstu rek maanaam <laughs> ñi nga fi déggaat ñuy wax mooy noonu ñi rek ay gars yi la xam dañuy gëstu rek di dugg ci téere yi te xool la ñuy wax maanaam seen xam-xam soriwul daal moo tax ñu koy yël ah xabis moom ab ab tolluwaay la ci ci xadis la mooy koo xam ne moom am na ñoo xam ne mooy ko xam ne mokkal na gën daa néewul téeméer téeméeri junni xadis téeméeri junni xadis nag saa yi ko ñi ko fi <laughs> ko mokkal ko mokkalaat ci gaay yi wedd moo tax man da daanaay laybiri sama bopp di ko laybiri mboolem ñi gaa yi yëngu ci jàng nii maanaam ñooñu ay diglu ay ñooñu bu leen leen diglu sëñ bi dañ leen di tardeel dund gi dafa gàtt te yu baax yii ni mawlidu nabi li sëñ bi wax nii dara gënu ko ci nii maanaam boo amutoon benn xadis te sëñ Tuubaa saxal ko dara gënu ko wér maanaam mooy li gën a wér fi ne maanaam sëñ Tuubaa maanaam mooy dalil bi ci gën a wér mooy sëñ Tuubaa daana ko def te digle na ko kon na mooy dalil bi ci gën a taxaw sëñ bi daal xadis yi ñu lay wax yépp ne ginnaaw yonente bi ya maanaam téeméer at ak nangam ñaar téeméer at ci lañ ko toog a tàmbali dajale maanaam dama bëgguma ko sax bëgguma sikkal ni waaye boo ñu taxawoon fi ne man maanaam lenn loo ci lu ci dëgër dëgg dëgg daanaka fi ne maanaam yombul dëgg sunna mooy li sunna nangu rek li sunna jàngale ci jàng alquran ak jàng ak zikr ak itaamu taam ak ak ak ak yeneen tamit mooy yi nga xam ne tey sax na ci sunna <coughs> ni yonente bi digle na ko xam nga jàng alquran moom yoon bi digle na ko tudd yàlla itam alxuraan ko digle uzkurullaha zikran kasiran joxe aw ñam ak sarxe ak eh, itaamu taam salaatu ala rasulillahi madxu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalikoon ko ak waare ak daje gi ñuy daje itam daje ngir daje itam loolu lépp maanaam maanaam maanaam ngi daje ngir yàlla loolu lépp suñu yonent bi dajee ñaax jëm xam nga ak joxe aw ñam loolu moom yàlla ci wax na ne ñuy dugg sawara bu ñu leen laajee lu leen fa tee de lu leen fa lu ko fi dugal maa sarakakum fi saxar xaalu lam naku minal musallina wala mu naku nut'imul miskin daw ñu bernde daw ñu bernde ba tax ñu dugal leen sawara léeg <laughs> moo tax bernde yi ñuy def maanaam ci sunna la dara gën ko taxaw na ci diine diine xam nga xam nga diine diine daal du du ay du ay formalité diine suñ mbirum xol la moo xam ne moo xam ne yii nuy def nii ak ak maanaam maanaam maanaam boo ko ci génnee diine dara diine du amati ci moom <laughs> bisimilah sëñ Ndiaye. léegi ndax Euh, jullit ñi nag daa mel ne seenu njëlbeen loolu am nañu ko am nañu wax na ci jullit ñëpp lañ ko lañ ko farataaloon am nañu wax loolu waaye am nañu ne itam loolu yi nga wax maanaam maanaam maanaam maanaam du woon far nekkutoon farata ci ñoom ñaari wax yëpp am na ñu ne jullit ñëpp daanañ julli ñaar rakkaa rek njëkk ñuy farataal julli mu ngokk alayhi waaw moom foofu day wende kon ci moom la ko askan wax jooju nag xanaa ma xoolaat ko mi ngi ci barsan ji loolu seetlu ma ko ndax sëñ bi ñi nga ah loolu de uma ci xam-xam moom loolu de noonu laa ko dégg rek noonu nga ko dégg rek laa ko déggee awma ci itam maanaam maanaam maanaam ñett li bu leer itam ci gaañi laa ko dégg rek <laughs> gaañee koy nettali rek léegi ñu la sëñ diw nettali la waaye sëñ diw mañ lay wax moom fekkiwul sëñ bi man naa moom bu ko jëlee da ko jëlee ci ñeneen kon waaye nettali boobu daal moom waaw loolu moom moo tax kon nettali yooyu ñu taxaw ci daal ñaare ba nag waaye deret sëñ Tuubaa nag boo ko tëg dereti yi nekk te sëñ Tuubaa lu dara ju laabalaab la kon xaa mas naa def ñaan noo ngi jégalu baax naa bisu gàmmu ba taala dañ dajewaat def ab jataay njëkk ñuy dem ci penc ma mu sooba yàlla buñ toogee fi ba bu mindu nag nu doog a dem ci penc ma njëkk loolu nag buñ julee gee rek tàmbali boo kii ngeen ngeen teel a ñëw taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بان لكل من له مقول إياك أنا وسيلتي هو الرسول بان لكل من له ولاية كوني لخالق البرايا آية الحمد لله الذي صرفني بلطفه عن بدء لسنني أذكره جل على الكتاب وسنة البيداء والصواب أذكره على فرود وسنن ثم على خير الحمى من المنن أستغفر الله لفي وجر الخدام بإذنه مما جنيت ومدى أبايع يوم رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء أعاهد الله على في الكتاب بخدمة للمصطفى باب الثواب ولا استطعت بالعقل مسايح ما لم تدم شبرا على